patron yeeg mbaal ma def jigéen ñeeg góor ñeeg nuyoo mbégte ne ñëw leen ci li nga xam ne am nañ ko ci programme gii ci programme gii soo ko wax dëgg yàlla ay ak ak ñeneen ñeneen ñoo fi sos ba ñuy ci campagne passé APR Benno Bokk Yaakaar ñun ñëpp nit ñi ñëpp moom lañ woteel moom lañ doon woteel moom lañ doon sant nit ñi pour ñu woteel dëgg la dëgg boobu ba léegi mosuñoo tàggoo ak bëgg Macky Sall mosuñoo tàggoo ak bëgg a ànd ak moom waaye nag liñ naan yàlla mooy wax ne inna laaha laa yahdi kaydal xaa'iniin man yàlla dama mottali pexeem war wolof mu ne ku falu fàtte la la fal di nga ah, wax ba te pare mu tegaate ne muykat bi mu ne nga nekkoon fa mel nii bu ko bàyyee di dig na la ndax wax yàlla ndax képp kuy war yàlla du mottali sa pexe te nit lépp lu bëgg am ca yaakaar nga xañ ko ko lor na ko mooy suñu diggante nag mel na ni ak Macky Sall ndax ba ñuy sos parti bi fii doole ji Macky Sall yoroon moom la Ablaye Wade yor ñu bokk Ablaye Wade ànd ak Macky Sall ba bés ni ki tey mosuñoo dent gannaaw bi tey lañ ko gën a bëgg waaye moom na muy politiquee ñi nga xam ne ñoo ko bëgg di sonn ci ñoom amul soxla ci ñoom daf leen bëgg di noppi ñi nga xam ne defaluñ ko dara sangu set yor tour muy jigen muy gor ñoñ la soxla buy waxal ñoñ lay waxal buy dimbalé ñoñ lay waxal ñun nak dañoo dem ba bëgg dé dee mo ne ko bëgg dé wax wex ah? lu mat juróom-ñett fukki député nga génné len sans nga recevoir waxal ñoo ñoo xam ñoo ñi dañoo sos parti ñi ñoo fekk ci la ci parti xana xanaa rappel na mom du fal du fal yalla moy fal yalla moy fal waye su ngeen àndee so àndee ki nit buñ demee ba nga xam ne bëgg nga leen a yóbbu fanaan wala nga bëgg leen a dindi ci sa wet mais nga toog waxtaan ak ñoom waaye loolu yëpp def daf ñoo dindi ci fullaam ak faydaam ñu bëri nag ñemewu ñoo wax ñu bëri ñemewu ñoo def waaye man mi nga xam ne ba may dem ci moom suma engagement laa jëloon ànd ak di torox ba tey lii dama koy nangu li ma bàyyi ko te ci gàttal lépp lu ma waxoon duñ commencé ak opposition bi ba léegi gisu leen li ñuy liggéey dara luñ ca bañ Porokhane gii moom xam nañ ne borom na xam nañ ne ñi fi dëkk bindoo nañ ko rafet na waaw ñëpp a ci gërëm. kon daal président kontaan nga ci vote sanction bi am Porokhane daal. Sénégal du Porokhane. bi am Sénégal yëpp ci laa kontaan. waaw ci laa sanction bi am mobilité góor jigéen yi ñuy wax. Mm-hmm. Watsakson bii moo ñu dimbalee sàcc boo xam ne amut. Mm-hmm. ndax dootul sàcc rey nit la. jël ay jaase ki paaka. fekk nit ku yorut fukki junne sax nga rey ko dem. Mm-hmm. te état ba da seetaan xam nga ne boobu état jëmut fu baax. xam nga ne boobu état jëmut fu baax. yéen xam ngeen. moo tax loolu yal nañu ci yàlla musal. loolu lañuy ñuy muslu di ko daw. su ñuy paasee nag yàlla mën naa def ku faroote. ñu indi référendum ñu changé loi yi fi nekk indi loi yi l'islam bi nga xam ne ñun moom lañ bokk ak diinaay catholique yi ñun ñoo nekk ci Sénégal loi boobu ñu tëkkal seen kanam ndax réew mi dem kanam mais ñuy seen amuñ loi justice amu fi dëgg amu fi yoon amu fi loo def rek ñoom kilifa yi ci kaw ñoo koy suul ah fii ku fi tooñ mën nañ ngaa mucc waaye kuñ fi tooñ danañ la duma rey la suul la te kenn du ko fañ <laughs>